xare danam sama ma mën ci gaaj ñi tey de bi lange fo jaar ñu way laa yow ba xare danam mama ma mën ci gaaj ñi papis nga de bi nga yegsi fo jaar ñu way laa far leele way leele le daan jël ki muy bëgg a jiin papis ñaa la ñu koy woowe gàcce ngalaama. parce que c'est l'équipe qui reconnaît ta valeur donc ñu reprend euh, si trop am si fierté am si mbégte et puis surprise bi quoi parce que je m'attendais pas à ça ndax man su ma mësaan voyage damay ñëw rek gaar ni dugg sama kër enchaîné boo ko laajee téléphone am maa ngi koy wax ay maa ngi koy yónnee ay documents naan ko liiral bii gars dañ ko war a yónnee parce que je pense au travail donc c' est un grand plaisir pour nous li ñu fa wuti woon aussi ñoo ko bokk di def euh, c' est un dossier boo xam depuis l' année dernière la mais incha allah euh, lañ foo defi woon moom sans ngeen nekk fa mais seen image tax na seen présence yéen ñëpp mu ngi fa te incha allah du yàgg dara 2025 moom ragal naa ni toute l' dinañ fa dem benn ñaar ba ñetti yoon. donc di gërëm Marietou mi nekk à la tête de tout ça vraiment si bravoure am lii man maa ko waroon defal voilà bi kon mi nga xam ne moo nekk si côté digital bi Maguette Mbaye moom mooy sama famille la waaw mooy man maay moom yàlla mi dara tawul daal yàlla nañu yàlla boole nii ñu ko àndee nii aéroport ñu àndee ko Washington DC de grandes chaînes de télévision ñu ngi ñuy xaar ñu ngi wax foo leen mën a nekk. Euh, bëgg nañ présentation culturelle bi ñu gën ñu koon parce que benn journaliste moo fa nekkoon yónnee ko beneen xaritu journaliste mu ne non ñii foog ma invité leen je pense que c'est ça de la qualité mooy nga wan dara nga def dara nit gis ko wan ko keneen keneen wan ko keneen am na aussi de très grands projets ak ay sénégalaises yu mag yu mën a liggéey yu fa nekk yàkkamti recevoir Maguette yàkkamti recevoir la reine de l'or yàkkamti recevoir surtout ku leen jox ceebu jën américain yi bëgg nañ ko donc di gërëm l'équipe bi nekk foofu Bachir Seck nga xam ne suma waay la il n'a ménagé aucun effort lu ñu waroon def def nañ ko jëm si si organisation jëm si prise en charge jëm si évén parce que bi ma demee ba foofu il fallait chercher des figurants on les a cherché partout dem si ay état récupérer leen donc sant yàlla alhamdulilah di gërëm aussi sama goro bare pap man moom moo ma gën a bett si terre bi ça fait voilà donc di wax aussi suñu partenaire yëpp madame Lo Amadou Diop daa fashion nga xam ni lii yëpp moom la di gërëm aussi suma doomu ndey Bamba Sow dégg naa moo jaar si grand boub bi waaw donc moom ku baax la donc euh, macha allah kontaan nañ daal di ñaan yàlla suñu borom nii ñu ko àndee ñun nii ngeen ma ko defalee surprise ñun tamit ñu dem bu ñu ñëwee ñeneen defal ñu ko ñu ñi ñëpp surprise et ce sera pour très bientôt donc du man du sama liggéey yéen seen liggéey la moo dañoo pare prestation rek ñu ne ma ñu ne non c'est pas possible on n'a jamais vu une aussi belle représentation culturelle donc boo leen fa nekkoon yéen xam naa ni day gën a donc kontaan naa daal ça plaisir merci à vous tous ci déplacement bi ci teewaay bi ah ak euh, surprise bi quoi. bëgg naa bëgg xam nga tey euh, ñun ñëpp euh, macha allah. Hmm. fierté la ñëw taxaw fi sa wet. parce que parce que Papis sama grand frère la waaw man damay parler de moi sama grand frère la yàgg ma estimé te man c'est un de travail à côté de lui parce que nit koo xam ni ku jox nit cër jox nit respect xam ni muy waxee ak yow te xam na liggéey mi ni muy demee donc loolu soo amee grand frère bu mel ni yow di la protéger di bëgg lépp lu muy def bëgg ko bokk ak yow di la laaj sa xalaat. sous-estimé loo ci benn côté des fois Papis wax dara ma wax dara sa ma bik yow loo def noonu la donc loolu confiance moo koy def te loolu xam nga c'est pas évident d'autre part aussi fu mu dem aussi xam ne dinañu Papis li sénégalais yu bëri di di di loo xam dañ koy jaawale mooy que yaakaar naa Papis lu muy def xaalis moo tax mu koy def loolu il faut moo ko tey Papis lu muy def lu bëri man xam naa ci dara xaalis taxu ko bu doon xaalis kon ñun ñii yëpp yor nañ wala moom mii tey nga gis ko ci beneen level képp kuy ànd ak moom dama koy wax tey te yaa ku àndul ak moom te yàlla rek tax te ànd te bëggoo li ngay def te bëggoo ko jàppale bëgg jàppale tamit sa réew bu dee alal moo tax koy def bu ko def loolu moom dama koy wax rek te yàlla rek tax bu dee alal moo tax nga koy def bu ko def parce que li muy def alalam lay jël di ko ci dugal. xaarul état xaaru ku ko sponsorisé xaamul xaarul dara amul sax lenn lu ñuy def ngay gis ni kii moo ñu sponsorisé jox ñu alal bii nii pour ñu laa def donc loolu nit koo xamante ni ku am passion ci li ñuy def la bëgg a yóbbu culture Sénégal ci kawa a kaw a kooku rek kooku rek moo mën a jël moo moo mën a jël loolu def ko parce que ambition yi mu am la ci réewam donc beneen bi aussi li mu demoon def États-Unis ñëpp gis nañ ko ñun on est juste derrière lui on est juste derrière lui juste pour xam nga pour euh, pour les projets pour jàpp ci affaire yi daal dox ñun on est rien du tout c'est lui qui qui fait tout yaa marietu donc moom tamit xam nga doon lakkantaan boo xam ni lépp lu muy def bi kon nangam nangam nangam donc man je suis le petit frère boo xamante ni juste dama nekk seen ginnaaw. sunu lakkal ba sunu waykat baa ngi nii su Maguette Mbaye macha allah ànd nañu voyage yi dem fu nekk. mu doon équipe bu suudee mais ba pare joxante cër respect ñëpp am ambition ci li ñuy def da ngay gis nii lépp li ñuy def rek dangay gis ku nekk bi ci def rek yi demee xol parce que man ni may waxee man c'est la première fois si sama àdduna ma taxaw caméra tiim ma di wax ndax du ma ko def mais Papis sama grand frère la boo xam ne mënal nangul naa ko defal loolu parce que mérité na ko ci man ak mérité na ko tamit ci Sénégal mérité na ko ci pépp ci àdduna fi mu dem malgré il était là-bas mais on collabore on travaille day par day jour par jour nuit par nuit donc macha allah yàlla na ci ay xéwal yu bëri topp te incha allah fa la jëm sax waaw incha allah fa la jëm sunu sœurs yi tamit xam nga Linguère Fall moom mooy ki nga xam ne moo gagné la Reine d'or bi passé dañ ko doon defee hôtel Azalaï de Dakar ah, moom tamit macha allah euh, jekk na ci taaru na ci c'est une femme de valeur nag dañ koy gis nii rek mais xam naa ni moom. Euh, bés bu ñu ko tiimalee micro yi moom gars yi dinañ dinañ dinañ dinañ tubaab bi dinañ yéemu te incha allah loolu yàggatul dara mu fara de belles tournées avec des belles surprises avec Ami Ami Fall aussi moom tamit xam nañ ko donc euh, moom mooy xam naa bu gars yi xamee kii rek moom la ñuy jox euh, kii nu mu bëti Mariétou ceebu jën bi ah mu doon mu doon mu doon ah mu doon fenn mbay bi macha allah. macha allah Mass ñoo ngi am contentement bu baax tey accueillir Papis avec fierté. parce que li ñuy wax rek ku def lu rëy da ngay am lu rey vraiment parce que Papis il nous représente dignement partout Sénégal moo ci njëkk ci fin fond Sénégal dina fa dem représenté ñu en Europe dina fa dem représenté ñu tey mu dem aux États-Unis représenté ñu non seulement représenté la culture sénégalaise mais ñëw ak ak ORSE comprendre nga ñu jox ko ORSE euh, ci état wu Delaware wax dëgg yàlla mu nekk ouverture bu mag ci la culture sénégalaise plus particulièrement traditionnelle comme ñun ñu koy defee parce que ñun lu ñuy défendre mooy suñuy ay patrimoine papis dem fa yóbbu fa aada ak cosaan ñooñu bëgg ko tey ji ouverture yu bëri war ci am yaakamti nañ gis papis ak tout le groupe au complet kenn bañ a manqué muy waykat yi di égérie yi di kat yi di ñëpp donc kontaan nañu bu baax tey recevoir Papis parce que nii ñu ko recevoir sax on dit que def nañ suñu asaka yéene mais waroon na gën a ëpp nii mais comme dañoo nekk foo xam ne nag ñun dong moomuñu ko te ñu def tapage nii rek lañ mën a def wan ko symboliquement que ne li mu dem defi woon ñun xeebuñu ko li mu dem defi woon ñun kontaan nañ ci bu baax te ñun ñii la ko defal macha allah donc on est fier de Papis ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér ak wér le parce que Papis bu rek yàgg fi rek jàpp naa ne man ak samay moroom képp ku ko jege te nangu bokk ak li kon wax sànq bañ a jiital yenn yi rek incha allahu rabbi mën nga sori ak moom donc gàcce nga laa ma Papis nous lui disons merci au nom de tout le groupe Ceebu Jën Penda Mbaye depuis le 22 euh, août 2022 ba tey ñi ma taxawee ci 2024 ñoo ngi remercier Papis képp ku jaar ci concept bi aussi ñoo ngi lay remercier mais Mass mënuñu daaneel sans pour autant lancer benn hommage aux femmes parce que dañoo nekk ci octobre rose vraiment muy les femmes attente de la maladie ak ñi nga xamante ne ñu ngi lutter contre leur vie ñi nga xamante ne amputé nañ leen ñi nga xamante ne ñu ngi nekk ci euh, métitu cancer boobu euh, ñoo ngi leen di wax ne ñoo ngi leen di lancer un message de réconfort di leen wax ne qu'elle soit malade qu'elle soit guérie et tout ñoo on est femme on reste forte te ñoo ngi leen di soutenir ñoom tam ci seen bopp di leen wax ne on est tous pareils et on est tous les mêmes donc bravo aux femmes e soyez courageuses. Merci. liggéey. nga demal liggéey daal ma daale. waaw taw si wetam sax daal koy bañ a wér. waaw. Eh, ci diggante ñaari rek yi waaw. aca allez-y. waaw vas-y vas-y dama dama dama. Ah oui. c'est la famille ñoo ngi kontaan bu baax vraiment liñ naan boroomi mbokk moom boo wootee ci moom vraiment dañ lay wuy si depuis bi ma nee damay defal papis accueil vraiment ku nekk mu ngi bëggoon ñëw bien vrai que fii li muy sori sori ci ñooñu ñëpp nag li ma ci gën a touché mooy madame Lo mi nga xamante ne wax dëgg yàlla amul jot mi ngi liggéey yor entreprise am wax dëgg yàlla nekk responsable bu mag ci dëkk bi mais dama ko ko wax mu def une forte délégation ànd ak waa bureau ñoom Fat Bintou ak Amadou Diop et tout vraiment moom li ñu lié à mooy c'est partenaire parce que moom mooy def MIT Sénégal agence immobilière la dafay jaay kër dafay jaay terrain wax dëgg yàlla di ko defal waa Sénégal ak waa bitim réew parce que bëgg na képp ku dem bitim réew uti teraanga je pense que kër mooy sutura bi kon moom kenn amul fayam mais ci kaw loolu yëpp le respect et la considération dafa ëpp solo lépp parce que mënoon nañ ko ko wax aussi mu bàyyi ba ci kanam ne ma marie tout je suis pris au dernier moment wala dara mais non non vraiment elle est là ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant wax dëgg yàlla di ñaan yàlla ni mu rafetalee suñu collaboration ci France ci Luxembourg ba ci Sénégal gi yàlla na lawalaw bu baax moom muy waaj bés bu mag parce que loo leen koy gisee nii moom ma ngi meññee ci Cheikh Tidiane Diop bu daaray Kocc wax dëgg yàlla bu neexoon mu ne yaafus la wala dara mais ci lu mu bokk rek kenn fekku ko ci yàpp ko léegi nag le 27 novembre incha allah dafay def euh, rendre un grand hommage à son père notre père koo xamante ne vraiment voilà le baobab du Sénégal def formation ci loo xam ne ma je peux dire que université la jàngal na mag ñi yar na mag ñi yar na xale yi yar na ñi mu bokkal génération ak ñi nga xam ne dem na bàyyi leen fi les œuvres sont la vraiment ñu am ci fierté donc le 27 no le 26 et le 27 novembre incha allah dañuy rendre hommage notre père Cheikh Tidiane Diop le concept Penda mbay Euh, la reine de l'or muy Amsa di lépp luy liggéey loo xam ne Papis Niang moo ko def nañ ko fa xaar vraiment te képp koo xamante ne bëgg nga sa dëkk aussi te xaalaleel noonu daara ji way bi nga mus koo dégg rek kontaan ci ñoo ngi lay woo le 27 incha allah Sorano di ngeen gis image di ngeen gis spectacle di ngeen gis ñi ngeen gëj a gis di ngeen gis ñoo leen xamante ne nii da leen xam ci écran bi te mosoo leen leen gis incha allah rabbi donc madame Lo ñoo ngi ñaan yàlla egg ci ak jàmm salaam incha allah dinañ la taxaw dinañ la wuy si comme ni ñuy wuy see incha allah ñoo ngi ñaan mu nekk une belle réussite te barke baayam wallu ko ci incha allah waaw ah, merci beaucoup <laughs> macha allah kay maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp euh, ci seen teewaay euh, di féliciter Papis ci li nga xamante ne moom la indil Sénégal muy prix bi nga xamante ne moom la ñu indil euh, nga xam ne moom la jëlee ba États-Unis mu doon mbégte gu rëy mu doon fierté mu doon ndam mu doon succès mu doon évolution di résultat liggéey boo xamante ne fi mu tàmbalee moo sori ba mu yegg fii te fi mu jëm dafa sori tamit te Papis dafa doon nit koo xamante ne vraiment euh, li ñuy wax rek ndawalu guddi la boo ku ñëkk a yeew rek foog na yaa moom ndax dafa yaatu dënn bu sañoon ñëpp réussir surtout nag muy homme de culture muy homme homme boo xam nit koo xam ku gëm aar la ku gëm culture la ku bëgg a réewam tamit waaw muy représente tamit ci réew mi lu bëree bëri loolu moo ñu lié ak moom euh, ak franchisme ak gëm li nga xamante ne tey jii nii mooy jaay suñu cosaan ak suñu aada donc nag euh, ñu koy félicité di félicité tamit équipe bi nga xamante ne moo ànd ak yow commencé ci yow Mareetu ak euh, Maguette Mbaye non man moom <laughs> benn la rek équipe bi la rek xam nga ñëpp daal ñi nga xamante ne tey jii Penda Mbaye ren Asia mbégte la ñuy ñuy wane li nga xamante ne mooy suñu cosaan mooy suñu aada tubaab bi wala waa bitim réew mënoo leen wan lu ñu am waaye lii mooy li nga xamante ne foo ko mënti yóbbu ñu xam ne am nga culture am nga cosaan am nga aada ñuy féliciter Papis di ko encourager nekkoon ko nag bu mu baisser les bras na foncer na foncer boppam bu baax a baax a baax ci ci dëkk ci Sénégal ndax euh, am na lu mu fi liggéey te war na gën a mën dem si kanam bu forcer rek affaire bi dina dina dina dina dina dina jaay boppam euh, nga wax tamit lu am solo muy hommage bi nga xamante ne moom la ñu war a rendre Cheikh Tidiane job sama grand Daaray Kocc ñu war ko def le vingt cinq vingt six vingt sept euh, ci initiative bu sama doom Fatoumata Lo Diop euh, ñu ko ci euh, ndokkeel waaye di ko ci ñaanal di ko ci ñaax lu mu ci fas yéene def rek ndax xam ne barke baay rek moo ko ciy topp bu baayam dellu si tey ji du defaraat toogaayam dëgg neex yàlla boot na ay magam uuf na yaayam respecté na ay baayam respecté na ay bàjjanam plus particulièrement nag man ko wóolu gi ma wóolu dafa jéggi dayam ndax mënoon na ne sama rakku papa rek la naa yem sama néegu ndey mais ñun la jiital ci lépp rawatina nag man te bu soobee yàlla Diop Matar Penda Jigal di nga ci am ndam lu ji ku sa jort te loolu man am naa ci yaqin du ma du ma waxantu dañuy ñaan yàlla yal nañu yàlla ma ñu tàmbaleeg bismillah yeggal ak alhamdulilah rabil alamin ndam li dina dina dem ba dépassé la incha allah di nga ko fekke di nga ko tal di nga ko mën ba weesu ko te lépp a jàmm salaam ak tawfiq ñu àndandoo ko bu soobee yàlla ñu ngi koy yëgal Sénégal yëpp. Euh, xam ne daal équipe Penda Mbaye Ren Asia groupe aar bi management ak ñun ñëpp daal ak waa AFI ASI sama doom yu ñaam ñaawul yi ñoom Ndumbé faat Bintu Omar vraiment ñuy ay jàmbaar yoo xamante ne vraiment ñoom bu ma leen gisee ak madame Lo sama rem day daw ndaxte ki lay kiy liggéey sa doom nga gis seen ñu doon benn mbégte la te ñoom dañoo doon rek benn macha allah ma leen di ñaanal seen structure bi ñu yor yàlla na nekk ci pays Afrique yëpp. yàlla na fa ne ngeen am fa ay bureau et partout dans le monde incha allah salon bi di dem di wër le tour du monde incha allah te yàlla mën na ko nag yàlla na ko yàlla def ci barke ajuma ji incha allah ñu ngi lay féliciter Mariétou di wax joxe prochain rendez-vous rek incha allah ñu dem rek daa def vingt cinq vingt six vingt sept ñu yëngal ñu def rek incha allah lu ñu yéene Cheikh xam ne lu luñ ko defal rek Diop Matar méritoon lu ko raw ndax moo ko liggéeyal boppam ni ko ni ko papis di waxee rek ne c'est un baobab effectivement c'est un baobab baobab boo xamante ne li mu yi yeneen baobab yi mu juraat daf munuñ ko sax dañ koy sax da koy fàtte. kon fi mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jóge waaye hommage bi bii na ci teg loxoom. ba fi ñu ko bëgg a yeggal ci hommage bi yàlla yegg la ñu ko incha allahu rabbi jërë ngeen jëf. way wi jombul la yaa ba Amérique ñu jox wuntag ma ngundu usey mëcca guy paar way wi jombula yaa demba la raaya wuntag ma guy paar way wi jombula papis yaa demba Amérique ma ngundu papis mëcca guy paar way wi jombula yaa ñu jox la raaya usey ma ngundu sey ma ca guy ma ngundu usey mu ci guy paar sa way wi jombu la papis ña yaa dem Amérique ñu jox la raaya ana madame loo lay bëgg ji loo untang mangundu usey mi ci guy paar sa way wi jombula yaa dem ba Amérique papis nga ñu jox la raay nag mangundu usey ma ca guy paar way wi jombula yaa dem ba Amérique ñu jox la raay untak mungundu uusey mi ci guy paar sa way wi jombula papis yaa dem Amerigo ba ñu jox la raay untak mungundu uusey mi guy paar moo xam nga moy sama maam a demba Amérique ñu joor la billaay untëg ma ngundu usey mi ci guy paar sa way wi jombula papis yaa demba Amérique ñu jox la raaya untëg ma ngundu usey ma ca guy paar ajaratu ndey jaare gey sa yaaye ñu jox la raaya